xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haajat xasaayidi ya qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman kon mbokk yi ba tey ñoo ngi ànd ak yéen rek ci ànd ak yéen rek ci reportage yi nga xam ne nii dafa ñeel bisub xasida bi fii ci Touba ak li ko wër jumaa ji ak li ko wër nag ñoo ngi nekk ci buntu kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fii nag kuréel jokkoo bu ndar maanaam kuréel gi lëkkale mbooleem kuréel yi nekk ndar ñoom la ñu fare fii ñoom itam tabbis nañ ci liggéey bi ngeen dégg ñu ngi jàng ñu ngi durus ak lépp lu aju ci liggéey bi Seydina Omar Fall ak Seydina Ibrahima Thiam ñoom ñoo yor liggéey bi kon bëgg a xam nga dikkal ñu tuuti ci ñi ñan la ak seen taxawaay ci bis bi lan nga nuy leeral. bisimilah kilifa gi ñoo ngi siyaar bu baax euh, di rafetlu taxawaay bi ci liggéey bi comme ni nga ko waxee rek tey dañoo ñëw ngir dundal euh, grande journée xasida bi nga xam ni mu Mountakha moo ko woote. ñi ngi ñaan suñ borom yàggal ko fi lool may ko wér ba naar yi mu naal liggéeyal sëriñ bi suñ borom mu attali ko kon comme ni nga ko waxee rek fii kuréel jokkoo bu ndar la moom la ñu boole ak waa Louga ak waa Kébémer ak waa Sagata. waa Louga ñoo nekk ci biir ñun ñoo nekk ci biti ci penc mi fii nag comme niñ ko waxee rek kuréel yëpp nga xam ni ñoo bokk ci axe euh, région de Louga bi ñoom ñoo fi ak région de Saint-Louis ñoom ñoo fi daje ci wàllu durus ak ci wàllu yëkkati kuréel gii ngeen di gis muy jàng mooy kuréel bu tarxee bu ndar kon noonu rek lañ koy jàppee si suba ba léegi bu kuréel jógee rajas ñëw kuréel ñëw rajas ñëw ba ba ba waxtu wi ñu sëñ bi wax rek ñu daal di daaneel kàddu yi waaw. ndax mën xam ci xayma ñaata kuréel ñoo fi fas yéenee jàng Euh, suba ak léegi bu ngeen tàmbalee ak léegi ñaata kuréel ngeen programme ñoo xam ne nii fas nañ fee yëkkate xasida waaw comme ni mu ko waxee rek bi ñu xëyee ci 7 heures ci lañ tàmbali waaye euh, xëy na limu kuréel yi takkaguñ ko léegi ndax waaye diggante beeg léegi rek dafa mel na euh, juróom benn kuréel jàng nañ fi bu dee ci rajaskat juróom benn rajaskat tamit jàng na fi te fii ba ba ñuy daaneel kuréel yaa ngi taxaw war a jàng ci biir ak ci biti waaw noonu la noonu lañ ko fas yéene àndee xëy na bu ñu noppee daañu def bilan wax ñaata kuréel ñoo fi jàng ak ñaata limu xasida lañ fi durus ak ak ñaata rajaskat ñoo fi jàng waaw. mu nekk liggéey boo xam ne ni ñetti at a ngi ñu koy def sëriñ bi di joxe ndigal waaye jo junj bi joxoñ bi ak yéenay sëriñ bi mooy murit yëpp doon benn àndandoo di liggéeyal sëriñ Touba Cheikhul Khadim ci toolam bi rawatina xasida yi loolu mel na ni feeñ na fii ak ay bërëb yu ko ci tubaa ak li ko wër boo ci doon def ab jàngat ak ab soññee ñeel mbokki taalibe yi yan kàddu nga ciy barkeeloo waaw loolu de xam naa ni moom damay bàyyi sama jëwriñ rek Seydina Ibrahima Thiam ginnaaw moom mooy jëwriñu jokkoo bi moom mu indi ci kàddu soññee ak kàddu dajale gi tax ñu xam ni liggéey bii ñu sëriñ bi sant mooy ñu nosu doon benn ngir mën a matal liggéey sëñ Tuubaa sëñ Ibrahima kon ñu ngi nuyoo di ziar rek ni ko jëwriñ ji waxee léegi xam naa yow fi ngay àddoo mooy bennoo gi nga xam ne ni sëriñ bi mu ñu koy bëggal di ñu ko junju di ñu ko joxoñ di ñu ko tegtal ñetti at yi ci bisu xasida yi bisu zikurla yi bisu alxuraan yi loolu gis nañ ko fii ak ay bërëb yu fasantikoo ci jumaay ji ak li ko wër ban jàngat ak soññe nga ciy jox mbokki taalibe yi rawatina ñi féete côté Louga Ndar ak li ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ngi nuyu lislaam boobu di si jiital Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gépp ak sunu jëwriñ yëpp ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi maanaam kàddu soññe yi dañu koy tàmbalee ci sunu bopp fexe tàggat sunu bopp ubbi sunu xol dugal ci ñëpp tëj ndax mel na ni sëriñ bi noonu la ko bëggee wax jooju mu waxoon bu yàggul ci sunu ñaaru kuréel yi wax ne fajal ngeen ma sama sama góomu xol kon mel na ni loolu rek buñ ko déggee te jàpp ci te ngoy ci nu fexe nun ñëpp doon benn say ndax wane na ni mooy bëggub sëriñ bi waaw kon lool noo ngi ciy soññaat suñu bopp di ci soññ mbokki taalibe yëpp ñu gën a laxasoo gën a doon benn ba fu ñu bëgg yëkkati liggéeyu sëñ Tuubaa bi ñu yëkkati ko lu ñu bëgg jëmmal ci yoonu sëñ Tuubaa bi mu jëmmal ko te loolu li ñu ko mën a may nag mooy booloo doon benn kon noo ngi sant bu baax Cheikh Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te di santit mbokki taalibe yu baax ci nangu gi nu nangu ndigal gi ndax loolu moo nu war waaye gannaaw nangu nañ ko nag di ci def ay jéego donc ciy sant mbokki taalibe yi te di soñña nag bu baax a baax xam ni lu ñu gën a xuus du doy lu ñu gën a xuus du doy nanu gën a doon benn say ba saabu bu nu sëriñ bi soxlaa rek fekk ni ñoom waaw ñu ngi jégalu ci kàddu yu baax wasalaamaaleykum jërëjëf Seydina Ibrahima Thiam waaye Seydina Omar Fall ñu ngi leen di ziare di leen jaajëfal doon àddu nag ci euh, ñi nga xam ne ni mooy kuréel jokkoo ndar ñoom itam di def liggéey bu am solo fi nga xam ne nii moo di buntu kër sëñ Abdou Lahad yaakaar naa ne kaddu yi leer na soññe yi leer na te itam buñ fi jógee incha allah lii ab yóbbal la ak aw doxin woo xamante ni mboolem murit yi fas nañ yéene doxe ci benn ndax sëriñ bi loolu rek la ñu bëggal kon mbokk yi ñu seetaan ci réew mi ak bitim réew di leen fàttali rek ne ñoo ngi ànd ak yéen saa su nekk ci bisub xasida bi nga xam ne ni rek mooy troisième édition ci mboolem bërëb yi nga xam ne ni ñu ngi ko fay màggal ci ndigal ci ak benno di daaj di ñaan daje ci ngërëmal sëriñ bi jërë ngeen jëf. ñoo ngi fi nag ci kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ibnu Xadim Rasoul ngeen gis ne mbokki taalibe yi bàyyeekoo Louga Kébémer ak mboolem diwaan yu ko wër ñoo fi nekk di dundal ndigal li ñu ngi taxaw ak Serigne Mbacke Mbodj kon jëwriñ ginnaaw biñ leen nuyoo ziar leen mel ni tey waa Njàmbur ñoo daje fii tey jii ngir jëfe ndigalal sëriñ bi waaye lépp ànd ko ak mbokki taalibe yi rawatina comité de pilotage bi boo ñu bëgg a def benn présentation ci yenn ci daayira fii teew. ak taxawin ak euh, euh, doxalin wi ak taxawaay bi lan nga ñuy leeral ci gàttal. bismilaahi min sadar jim bismilaahi rahmaani rahiim wa salaatu ala rasulillah ñoo ngi nuyu ñëpp di seere ñëpp di ñaanal suñu Muntaxa suñu borom dolu ko ak wér ñu ànd ak moom liggéey suñu Tuubaa bi at yu bare bare bare ci kanam ci barkab suñu Tuubaa di ñaanal suñu am sa mi nga xam ni mooy jëriñu liggéey bii ak mboolem ñu ngi ko àndal si isprox yaak ak mboolem mbokk taal bi yëpp ñi nga xam ñooy taxawu liggéey bi ni nga ko waxee nag fii moom ñetti at yi weesu yëpp diggante Louga ak Ndar fii lañuy ñuy jëfee ndigal lii su dee Louga li tàmbalee ni nga ko waxee li tàmbalee Kébémer rek ba ndànd ak biir Louga ak dëkk yi commune ko wër yëpp moo xam Ngën Saar la moo xam Jëleeru la moo xam Guyaar la dëkk yooyu yëpp Palmeew waa Mbelaxoor dëkk yooyu yëpp ñu ngi fi ànd di jëfe ndigal li xam ni moom la sëñ Muntaxa joxe ci ngir dundal xasida yi ak euh, fàgg ci loo xam ni dana jëriñ mbindeef ci kaw suuf yëpp ci barke Borom Touba. xam naa beneen laaj bi ñu ci teg mooy ginnaaw organisation bi ci wàllum njàng meeg durus bi ndax yeneen matuwaay yi nga xam ne ni itam ñu ngi ko doon soññee moo xam muy wàllu bernde yi ak organisation bi loolu itam naka ngeen ci taxawee tey jii. waaw loolu it maanaam at mu nekk rek dañ ciy gën a am expérience di ci di ci gën a di ci gën a ci gën a avancé ba bareen gi yaakaar naa ni daanaka lañ fi xew loolu lépp mbokk tali bi ñoo ko dajee. Mhm. ndax laataa ñuy ñëw. dañuy woote Louga ab ab daje su ko defee kuréel yëpp seen i teew ñu xam ne ne mbir mi ndigal si Muntaxa la mhm. ñun ñëpp jot nañ ci euh, foog waaye waaye ñu waxtaan mhm. seet nu ñuy def ba nga xam ni dañ ko mën a def ni mu ni mu gën a rafetee mhm. su ko defee léegi dañ koy def ay commission yoo xam si ni dañuy sàkk commission culturelle sa sàkk commission commission organisation su ko defee benn ba ñu wutul ko ab jëriñ su ko defee maanaam mboolem li ñu soxla ñu mën ko waxtaan ba xam ni mu toll su ko defee ñu sas kenn nag waaye kenn kone kone ku ne yaay tobbil sa bopp aw sas seet li nga mën nga def ko ci bu buñ ko dajalee ñëw ànd ko comité bi nga xam ni waa comité comité de place waa ñu woo xam ne ñoo koy fàggu fii nii su ndikkee dañuy sof ci ñoom ànd ak ñoom su ko defee li mboole li ñittuwoo lépp ñu mën koo fàgg loolu nag seetlu nañu at bu nekk dañ ciy dañ ciy gën a dañ ciy gën a jëm kanam dañ ciy gën a jëm kanam te mbokk taaliba yàlla ñu ngi ciy defit lu lu lu lu kawe ndax fii nii maanaam maanaam boo xoolee yenn yi nga xam ne mën nañ mën nañ koo fàgg laata ñu ñëw ku ne da nga def li nga mën indaale ko moo xam ay beñe la moo xam café la moo xam ndaxlo loolu lépp da fay nekk ba jóge fi doo jën dara te dina sax des dina dina des su dee wàllu kuréel gi tamit noonu lañu koy defee maanaam kuréel gu nekk laataa ngay ñëw daana laaj daana laaj euh, xasida yi ngay jàng nga bind ko yónnee ko bu dee ku yore ges tamit dañ ko laaj xasida gi muy jàng mu bind ko yónnee ko suñu xoolee ñu xool lim bi ni mu toll sédd la temps bi ci diggante waxtu bi nga xam ne ci la ndigal li ci euh, ci lañ ndigal li ak ci lañ ci lañ war a taxaw su ko defee mboolem li nga xam ne dañ ko fee durus tamit ko bind ci dañ gi nga xam ne ñooy seetu liggéey bi ci ngital Hizbut-Tarqiyyah waaw laataa ñu ñëw it ñoom ñëpp ñu ngi jokkoo ñoom jokk bu rafet moo xam waa ahlu xasida la xam daara Hizbut-Tarqiyyah ñi ngi jokkoo ñoom diggante ñoom di ànd liggéey bi sami joxee ndigal ba bañuy bañ fi nekk bañ fiy jugee lépp ñu ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy rafetlu bu baax di rafetlu taxawaay ñëpp ndax at bu nekk historique yi ñu ngi fi yebal koo xam ni fii lay nekk di superviser mboolem jo mboolem loo xam ne yitte ju ñu am na rek luñ ci man te suñ suñ mënuñu koo kii ñoom daan di ko daan ñu ko toppal ba doon accès ci ci nu mu gën rafetee waaw. mu nekk jëf joo xam ne ni nga ko waxee lépp dafa nosu ci ndigal waaye ci ak benn goo xam ne ni sëriñ bi mu ngi koy junj ak a joxoñ murit ngir ñu ànd nekk benn ci liggéeyal ko saa su nekk loolu gis nañ ko fii gis nañ ko ci yeneen bërëb yi gis nañ ko ci mbooleem édition yi jàll mbokkum taalibe yi ñëw nañ àndandoo di liggéey ci xasida yi ñi di liggéey comme ni nga ko waxee ba doon joxe ay soññe ñeel benn goo nga xam ne ni moom rek lañu sëñ bi woo lan nga ñuy wax waaw loo kay maanaam lu am solo la ndax ci feeñal ndax Sénégal amoon na kuréel goo xam ni moom la ñu wax ëllu xasida ñu taxawloon ko ci njiital suñu am suñu Mbàkke suñu Alioune Diop jiitu ko waaye mën naa wax na la bis bi bis bi bis wootee bis bii maanaam dëkk boo ki dem maanaam kuréel dafa nekk bu mutoon fukk léegi mën na fanweer ndax sëñ bi woo ëllu xasida woo te loolu moo waral ak na su am ba nga xam ne léegi dañuy xool euh, am na boo xoolee lu ko lu wër lépp dañ ko wutal ak kuréel koy ku koy coordonné ci jamono ju nekk ñu koy def soo demee Tivaouane am na fa soo demee Kaolack am na fa soo demee Dakar am na fa te loolu lépp maanaam ndigalal sëñ bi moo tax loolu mën a am su ko defee léegi kuréelu xasida yëpp ci réseau boo moo dem lënkalu nañ boole seen bopp loolu nag li li li li li tax ñun ñëpp ñu war cee bàyyi xel war cee góor góorgóorlu mooy gannaaw sëñ bu dee woo ñun ñëpp ñun ñëpp lay woowandoo kon loolu day ware ni ma maanaam ànd gi maanaam lu mënta ñàkk la lu mënta ñàkk la war nañoo war naa nekk ñun ñëpp suñ suñu yittee te xam ni gannaaw loolu la alxuraan santaane te loolu mooy bëgg bëgg bëgg sëñ bi damay faral wax naan loo xam ni dafay àgg sëñ bi di ko di ko ñaan suñu borom biir ñaan googu ku ne war ngaa fexe ba ba dugal ko sa bopp ndax bu waxee yaa rabbi ak yajal muridin maadam fii istikal asin wa sam nañ maa loolu ku ne war naa fexe ba ba dugal ko sa bopp ndax gannaaw fàgg gi daa mu dugg ci biir maanaam ku fa rek maanaam suñu borom mën na laa ci ci ci bare bare bare suñu borom mën na laa dimbali suñ ba sa jëf mën na koo nangul kon loolu murit yëpp ñu ànd ku ne war naa nekk sa yitte war nañ ko bàyyi xel moo xam ndigal lii la moo xam lu moo doon ñu koy ànd ko def ni ko suñu am si bëggee tamit at mu nekk ñuy fogg addi yi joo xamante ne si nii addi yi xasida la di ko jox sëñ bi mu koy digal ci liggéey yu bëri bii muy liggéeyal sëñ Tuubaa loolu ñu ko ne war naa fexe ba góorgóorlu ci loolu jënd barkeelu yu ba addi jooju mu nekk ay ay min ay milliards ay mi mu nekk ay milliards ndax ndax loolu tamit maanaam lu lu lu am solo la ndax li ko sëñ Amsa woor woote woon waxee woon ba mu ko jëkkee woote wax na ne murid yi fa daje kenn ku nekk am nga fooy siyaare dafa jox sa addiya waaye daa bëgg lii muy laaj lii muy laaj mu nekk addiya jox addiya xësit lay doon ñëpp war nañ ci ak dégg ba ba ñëpp jëf ci ba nga xam ni bu ñëpp teewalee seen jëf ñëpp maanaam addiya xësit yi gën a kaw jëpp ndax li ko si mu taxawee woon dafa dafa dafa dafa dafa dafa mas a wax ni maanaam ñi jàng xasida yi dañoo xam ne maanaam mbir bu nekkoon ab xare li jëm sama bu nekkoon xare ñoom ñoo jiitu ca kanam kon loolu ñu ci lépp nag la war a feeñ ñoo war a jiitu ci lépp te xam ni maanaam ñun la si borom dimbalee ñu nekk ci te tey jii li def ku ne gis na bis yi weesu am am na la fi amoon ba bisu amee suñu borom suñ Moussa bu kee woote loolu suñu borom jëlandi ko fi ci barkeb xasida yi kon loolu tamit war nañoo xam ni lii mën naa defar suñu adduna mën naa defar adduna bi mën na ko defar ci liñ fi ragal ak liñ ak liñ bëgg ci xewal lépp xës lii mën na ko defar ñoo ngi jégal ñëpp di saar ñëpp asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf Serigne Mbacke Mbodj doon wax ci mbokki taalibe yi ci turu mbokki taalibe yi nga xam ne nii ñoo bàyyeekoo Louga Kébémer Ndande Sagata ak mboolem euh, gox yi ko wër ñu nekk nag fii ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké ni mu ko waxee rek ci organisation bi ci taxawaay bi ci soññe yi lépp nag ñeel ci ndigalu sëriñ bi waaye ci bëgg-bëggu Serigne bi mooy murit nekk benn di ànd di liggéeyal Serigne Touba balaa xa ngërëmam kon ni ñu koy àndee géen rek dañ leen di jox dox daje ci kanam tuuti ak beneen site boo xamante ni ñu ngi fiy dundal ndigal li jërë ngeen jëf xasaayidi min mujizaatil muntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa